nuyu nañu leen téléspectateurs yu Leral TV ak internet yi ñuy suivre ci leral point net da leen a jàmm seen deuxième numéro femme de la semaine tey jii ñoo ngi fii ci HLM Grand Yoff daal di seet si benn artiste chanteuse boo xamante ne Sénégal kenn dootu ko présenté mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Paulette musique bi nga xamante ne da ciy yëngatu ñu daal di ko ciy ràññee lool mu toog ab diir nag dégguñu ko ñu fas yéene ñëw sekk ak moom waxtaan ci lépp loo xamante ne dafa jëmee ci carrière ci vie amoureuse bi nga xamante ne moom lay dund moo njaboot ak ak këram waaye aussi danañ waxtaane lépp loo xamante ne dafa laal wàllum actualité euh, naka la Sénégal tëddee jamono ji loolu lépp dañu ko ànd ak moom daal di koy waxtaanee euh, du ñu def lu dul daal di koy bàyyi mu nuyoo Paulette ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum à tous les téléspectateurs. Mhm. Euh, merci à leral.net waaw tey Paulette mu ngi fi ak yéen pour beaucoup plus d'actualité waaw ak euh, juste waxtaan ak yéen voilà bokkook ak yéen nouvelles yi. incha mhm. allah allah ci kanam tuuti daañu gën a yaatal ak moom waxtaane lépp loo xamante ni ñu ko waxee dafa jëm ci wàllum carrière moom Paulette la ñu dalal du ñu def lu dul laaj ko suñu première question Paulette gis nañ ni doon nga yëngatu ci li nga xamante ne moom mooy musique ba léegi nga nekk ci aussi di ci bay sa waar mhm. ñu toog ab diir dégguñu la lan moo waral silence boobu dafa dem pour defarwaat ñëw wala dafa def benn recul def benn arrêt stand by musique bi non du woon euh, arrêt mhm. mais c'était juste euh, dama amoon yenn euh, travail lu ma naroon def ak sama groupe mhm. liggéey itam si album bi amoon na ci et pourtant ñu ngi quand même loolu ñu ngi doon di jouer si yenn place yi mhm. mais après Covid bi ñëw et voilà tout ça a été un vrai stand-by quand même mais ñu ngi doon liggéey si projet futur yi ñu doon liggéey si répétition yu bëri et voilà si liggéey rek laa nekkoon. ci mhm, liggéey rek nga nekkoon gëj nañ gis nga mhm. gëj a génn produit aussi lan moo waral loolu. ben c'était juste que liggéey rek parce que comme on dit sa pro yeneen produit yi su su doon su marché. Mhm. da nga war a liggéey bu baax pour produit yi ñëw tamit mën a refléter li nekkoon ci ginnaaw. voilà c'était juste ça ñu nekkoon di liggéey bu baax di liggéey pour euh, ay projet futurs yu ñu am. social tamit voilà c'était juste. Euh, temps boobu lañ jëloon pour mën a parfaire liggéey bi. pour mën a seet tamit par rapport au critiques suñu suñu am di jaam ñu am nit yi nga xam ne dañuy ñëw seetaan. voilà pour parfaire li nga xam ne ne mooy devant de la scène pour parfaire euh, liggéey bu ñu déglu toujours c'est ça parce que déjà dañuy invité ay mag li nga xam ne dañuy déglu suñu ay produits. Mm-hmm. jox ñu ci ay critiques jox ñu ci tamit ay solutions. voilà. effectivement que mën nañu jàpp comme Paulette ci liggéey la nekkoon mën nañu xaar ay album bu génn wala pourquoi pas benn single boo xamante ne da koy béggali gars yi ci décembre beeg yooyu noonu. normalement waaw normalement war na c'est en chemin. Mm-hmm. war na am parce que c'était déjà prévu. et euh, tamit di liggéey tamit si prochain album bi mais si je pense que single bi mooy mooy njëkk ñëw incha allah peut-être mu nekk ñaar peut-être mu nekk benn. ça dépendra du nga abordé single bi lan lañ ci woy ak yooyu noonu. Euh, parce que musique yi am na si yu bëri. Mhm. léegi staff bi ak yenn grands yi nga xam ne ils sont toujours derrière moi ñooy ñooy choisir mhm. lan ndax lan lañ ci mais ça parlera de la vie actuelle. Mhm. mën na tam mm, mu nekk ci ça parlera d'amour aussi. ça dépendra parce que les choix aussi ça dépendra de toute l'organisation. léegi Paulette naka nga gisee euh, jamono ji musique sénégalaise est-ce que euh, euh, sentir nga ni musique bi am na avancement vu que xale yu ndaw yi ñu ngi jug bu ñu gisee ñoom Samba Peuzzi ci côté bi ñoom ñi nga xamante ñoom Adiouza ñoom ay décembre ñëpp daal di jug ci décembre bi avant sax ay ñoom Viviane ñëpp daal di génn ay way daal di teg. Mhm. xalaat nga ni am na avancement ci way actuellement fii ci Sénégal. am na ci mais bon peut-être est-ce que avancement ñun bu ñu doon ñaan la peut-être peut-être ça dépend du regard de chacun de chacun mm-hmm. chaque artiste quoi Euh, aujourd'hui euh, c'est un benn émission mmh. mais bon je vais pas dire le nom c'était juste pour dire que aujourd'hui euh, bëggoon naa ñu jox musique bi euh, valeur bu mu am parce que valeur bi dafa wàññeeku tuuti mm-hmm. parce que aujourd'hui c'est plus pour le show que plus des messages li ñuy jàllale. parce que avant nga ko mën a jàngatee ñuy def musique bu mel noonu. Euh, si si xale yi si xale yi la la génération d'aujourd'hui au fait. Mhm. parce que avant tu voyais dans les euh, dans nos musiques mu nekk message ñuy jàllale. Mhm. mu nekk vie actuelle yi ñuy di di vivre. Mhm. wala mu nekk conseil bi ngay jox si à travers sa mais aujourd'hui c'est c'est juste pour euh, la tchatch c'est juste pour wane wu je sais pas comment a, il y a plus ça parce que génération léegi ñoom au fait. wala dañuy def ay ay musique yu nga xam ne c'est juste pour vendre ou c'est juste pour. Euh, message yu jàll voilà il y pas de message il y a pas de signification fait. ben je pense que c'est désolant parce que. Euh, musique man ni ko xamee musique ça a toujours été quelque chose bu nga xam ne day day mën a defar. Mhm. voilà day mën a defar day mën a conseiller à travers musique nit yi day sentir ne ah lii lii moom pour sama bos la wala nit ki day ne ah ça c'est une bonne chose à travers la musique mu mën a faj. que ça puisse guérir quelqu'un que ça puisse conseiller quelqu'un changer même des situations voilà man pour lan musique c'est c'est en quelque sorte loolu la parce que quand tu portes ta voix dañ koy mën a comme li ma doon que j'ai l'habitude de dire mhm. je veux toujours que muy sama wéy wala à travers ma voix man ñu mën sax yee benn nit bu tëdd si si si si lalam qui était dans le coma wala ñu mën a rétablir ay situation ay solution pour ay couple Normalement, c'est ça. La musique devrait être un médicament, un traitement. Mm -hmm. Voilà, mais pas, mais pas pour le fun ou pour autre chose. Mm -hmm. pour moi je dis bien pour moi. Mm-hmm. pour yow mu nekk lu am solo loo xamante ne bëri nga eh, ci Sénégal ñoo xamante ne jàngat boobu la am. parce que mm-hmm. chaque fois boo waxee dañ la musique dafa musique dafa war a yeete. Mm-hmm. war a éduquer. dafa nekk loo xamante ne da nga koy déglu di ci sentir sa bopp wala nga si eh, eh, nekk di ko déglu di rêver di xalaat leneen. mu nekk aussi lu am solo loo xamante ne musiciens yi nga xamante ne actuellement ñoo nekk ci scène bi war nañ ci mën a bàyyi xel. bu baax a baax surtout Paulette sa toog bi dégguñu la. yaa ngi en couple yaa ngi marié euh, euh, euh, tey ji est du loolu moo gën a mën a loolu moo gën a tax sax nga stand by sa carrière d'un côté je ne pense pas non mm-hmm. parce que kon si loo gis rek mm-hmm. day day day jàngat la loo gis c'est juste une situation yi nga xam ne ni muy yow muy ki nga nekkal ngeen mën ko sekk si jàmm parce que muy moom muy muy que ce soit moom walla man mm-hmm. dañu fi ku nekk dafa fekk ku nekk voilà ku nekk dafa fekk keneen ki si mhm. ci liggéeyam alors c'est juste une question de organisation une question de respect une question de responsabilité mhm. waaw mhm. euh, nga nekk maire euh, lan ngay wax Euh, wala ban jàngat nga am ci actuellement réseaux sociaux yi ni ko ndaw ñi di jëfandikoo wala sax yenn artistes yi xale yi ni ñuy def. ci mhm. TikTok bi Instagram. Ah yi loolu nan euh, boo koy xool en tant que mère lan lay def. man déjà euh, en tant que mère ça m'a fait beaucoup peur. Mhm. parce que chaque jour maa ngi ciy wax ak sama doom yi. Mhm. ñoom week-end bi rek déjà la leen di bàyyi ak seen téléphone yi. juste pour ñu mën a des fois xool ci vidéo yi et même TikTok yi. ça pour moi euh, peut-être ñi ko initié mais pour moi je pense pas que xale yi soxla nañ ko. Mhm. parce que pour man ça les pervertit daf leen di yóbbu feneen. Mhm. parce que nous dañuy on se bat pour l'éducation de nos enfants. Mhm. et après. il y a les réseaux sociaux il y a autre chose c'est une influence. mais ñaan yàlla rek ñu mën ñu dimbale que euh, voilà éducation bi mën a dëgër mën a des. mais euh, aujourd'hui les réseaux sociaux pour les enfants c'est je pense que c'est une barrière. c'est une barrière pour nous parents nga xam ne dañu bëgg éduquer suñu doom dañ leen bëgg teg si yoon voilà c'est vraiment une barrière mais bon comme on dit on, on avance avec le monde moderne mm-hmm. mais ce monde moderne aussi peut être aussi euh, un frein pour ñun si si éducation bu ñu bëgg a jox suñu doom yi Euh, euh, euh, yenn artistes yi koy faral di jëfandikoo ci yeneen i anam tey ji boo leen doon lancer message lan nga leen di wax naka lañ ko mën a jëfandikoo ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi duñu dériver wala ñuy dem di di di copier ci ñoom loo xamante ne bokkul ci suñu société. ben moi je dirais je n'ai pas grand chose à dire parce que tamit tooñ doomu jàmbur mooy lool. Mm-hmm. mais. nañu def lépp ba xale yi liñ ci gis. mu mën a nekk lu lu positif. mu mën a nekk lu leen ce qui les pousse à à jàng lu lu bees ce qui les pousse à faire de bonnes chose wala mu nekk li nga xam ne ne ça les apporte. voilà si si si possible su dee voilà mun nañ def loolu ça ça va vraiment nous aider et je pense que ça va aider aussi seen doom tamit. pour eux ce sera vice versa pour ñun la ñoom la tamit. d'accord voilà. Covid 19 gis nañ ni euh, daal dinay laal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi. Ah euh, euh, première vague bi ñu ngi wax que ni bu mu ñëwee fii gis nañ ni mu leen laal wala ñu si yenn artistes yi. Mhm. actuellement ñu ngi si deuxième vague. mu nekk loo xamante ne arrangé wu leen vu que décembre mu ngi doon ñëw. waaw feneen mu ngi doon ñëw. ah ça c'est sûr ay produits. <laughs> ñu bëri toog di xaar ne dañuy dem mhm. ci soirée yi. yi yenn ministre bi ñëw ñuy xalaat sax ay yenn mesures yoo xamante ne mhm. dañ koy teg. loolu lan lay euh, yàq ci seen ay programme ak seen ay carrière yooyu. ben ñun comme on dit on se le dit entre nous euh, c'est comme si ñun dañuy sacrifier parce que. Mm-hmm. Euh, la majeure partie des artistes liggéeyatuñu. Mm-hmm. amatuñu liggéey parce que c'est ce qui nous permettait de pouvoir subvenir suñu besoin suñu besoin famille. et euh, aujourd'hui ñu ngi ñaan vraiment ñu mën a seet benn solution bu nga xam ne ne au moins dinañ si mën a gis suñu bopp au moins dinañ am as tout sax au moins pour parvenir à nos besoins suñu besoin doom yi suñu besoin famille parce que euh, on est artiste c'est un métier et aussi on fait partie de la population alors et je demande au ministre de pouvoir revoir pour ñun artistes parce que ça déjà amoon nañ ay prestations yu bëri ci décembre bi. Mhm. et aujourd'hui on devra voilà faire un stand-by encore une fois. Mhm. et euh, le vivre comme on dit on on pouvait vivre avec ça on pouvait l'accepter. Mhm. parce qu'on avait commencé huit mois on était sans avec ça alors gëm naa ne en suivant les gestes barrières en suivant le port des masques et euh, on peut y arriver voilà mais instant bi c'est c'est vraiment chaud pour nous. et c'est vraiment dommage. yaakaaroon ne artiste dafa war a am métier beneen métier bu dul euh, way bi wala beneen métier bu dul euh, euh, fecc bi wala beneen métier boo xamante ne war na ko mën a permettre mu am yeneen revenu yoo xamante ne jóge ci way bi ngir genre situation bi ñooy fekk mu préparé wu ci aussi. mais bien sûr en fait artiste c'est évident que ñu ñu bëri. Mm-hmm. entre ñu am nañ leneen lu ñuy teg si ginnaaw musique bi mais. li ngeen war a xam mooy musique te prend beaucoup de temps parce que la musique du li nga xam ne ne da nga ko war a def rapidement c' est des choses que tu dois penser que tu dois créer c' est des choses yi nga xam ne tu dois imaginer parce que c' li nga xam ne da nga koy sentir la génnee ko bëgg bëgg mu doon li nga xam ne ne day day réussir bëgg mu doon li nga xam ne ne ça pourra servir ou bien ça pourra satisfaire tes fan alors c' est compliqué de de nga boole ko ak leneen c'est vrai que ñun ñëpp ut nañ dara nekk si suuf mais le temps qu'on consacre à la musique et le temps qu'on peut consacrer à loolu noonu nga xam ne ne mun nañu dimbale ci ginnaaw c'est c'est opposé au fait parce que le temps qu'on consacre à la musique c'est supérieur au temps qu'on peut consacrer à autre chose. Mm-hmm. actualité bi ba tey mën nañ ci waxtaane bokk na ci dee yi nga xamante ne dañu faral di ko nemmeeku da ngay xëysu ba ñu ne pont ancien piste am na kuñ fa rey mm. wala ñu naan euh, euh, euh, Ouest Foire am na ko xamante ne faat nañ ko fa loolu nan nga ko gisee jamono bi ba juste que ñuy avancer si benn aire bu nga xam ne c'est mm-hmm. ça fait peur mm-hmm. parce que ñun suñu temps c'est vrai que amoon na loolu mais bëriwul woon mm-hmm. il y avait plus de sécurité aujourd'hui pour suñu doom yi dañoo ragal Euh, je dirais juste que nañ gëm suñu bopp. Mm-hmm. et euh, qu'on fasse attention à beaucoup de choses muy mu nekk suñu entourage yi suñu mbokk yi suñu doom yi euh, parce que aujourd'hui insécurité am na. Mm-hmm. soxor am na mais bon on a toujours vécu avec muy suñu maam yi ñun euh, l'essentiel nañ ñun ñëpp nañ booloo ñaan. muy musulman chrétien ñu booloo ñaan mm-hmm. pour que la paix la sécurité et. le partage, le pardon reviennent dans notre cher pays, le Sénégal. Parce que, comme on disait, Sénégal, c'est pays de la Teranga. C'est un, un beau pays. Mmh. à chaque fois que je sors pour aller dans d'autres euh, pays, mmh. quand je reviens chez moi, je suis trop bien. Je suis trop bien. Alors, euh, ils veulent tellement venir au Sénégal. Il ne faut pas qu'on gâche cette image-là. Mmh. Parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays où il fait bon vivre. Alors, euh, continuons dans ça. Euh, prions et ayons foi que dina mën ma se changer un jour. Mhm. Mhm. incha allah sa ay projet futur lan ngay waajal jamono bi. Euh, à part le single am na album bi. Mhm. am na ay tournées mais bon ça pour le moment on peut pas en parler parce que xamaguñu Covid bi quand est-ce mais on souhaite que. Euh, mu ñu mën ko éradiquer ñu mën a trouver solution pour que ñun tam ñu mën a su suñu activité yi ak suñu projet yi ñu amoon ak suñu entreprise yi ñu mën ko def parce qu'il y avait des projets sociaux il y avait des projets de de la sous-région il y avait des projets de live il y avait des projets d'album bon aujourd'hui peut-être dañuy limiter aussi liggéey en studio mm-hmm. et jusqu'au jour où lii yëpp mën a pandémie mën mën ñu bàyyi ñu mën a continuer suñu activité mhm. incha allah. kon su ma la déggee sa bureau wala dafa doon faral di génn di dem biti réew di dem ci sous région bi di amal ay soirées ay concerts et tout. oui j'avais l'habitude de dem Ziguinchor de dem dans en tout cas dans la sous dans le Sénégal faire une tournée sénégalaise faire une tournée dans la sous-région mais euh, voilà et il y avait même beaucoup beaucoup de tournées qui étaient prévues pour ce mois de le mois de juin passé mais bon avec euh, le Covid en espérant que 2021 on pourra refaire ces tournées la et on pourra les, les retrouver, toutes ces prestations qu'on a, qu'on a dû perdre. Inch'Allah, lan moo ko gën a marqué ci carrière am li ma gën a marqué c'est juste euh, cette façon que fans yi di la bëgg di di jooy pour yow ay nit yi nga xamul franchement yi nga xamul ay nit yu nga espéré wuloon sax mm. da ngay toog nit ki di la ñaanal ba sa yaram di daw wala benn mère di ne ay yow sama doom yow yaay kii yaay kële mm. yaay def nii di la ñaanal comme mais non loolu sa sa c'est c'est énorme et des fois dalay fekk ci ay situations yi nga xam ne euh, doo ko espérer sax mais juste le fait que ngay gis nit yi di la ñaanal war nga gis nit ki di ne dama la bëgg dafay wax ba ba di waaju jooy pas plus tard que hier mm-hmm. euh, c'est c'est incroyable xale bi bëgguma woon sax bàyyi ba dafa wax wax tellement ba sama ronga ñi tuuti ñu war mu ne billaay Paulette mm-hmm. il faut que tu viennes après le corona maa ngi ñaan yàlla li yàlla li alors ça mm-hmm. c'est vraiment comme je dis toujours c'est une belle richesse yàlla jox la nit yi lu bëgg yàlla jox la ay fan yàlla jox la ay nit yi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw di la ñaanal c'est vrai que am nga sa parents yi am nga sa frères et yi mais maa ngi sant yàlla beaucoup parce que c'est loolu waaw. Paulette lan lay regretter ci euh, ci ci carrière am loo xamante ne euh, euh, métti na ko ci. bon je pense pas que je puisse avoir de regrets parce que li ma doon souhaité la mooy nekk artiste li ma doon souhaité la mooy mën a laal xolu nit yi. mën a laal ay ay relations yu mën a defar ay relations et aujourd'hui je pense que même su amoon ay regret positivité boobu may gis ci sama carrière muur na ko alors je pense pas que j'ai des j'ai regrets dans ça c'est juste que may ñaan mu gën a jëm kanam mu gën a am ampleur à un point que sama baat ak sama sama voix wala sama musique mën a guérir mën a jugloo benn malade si si tëdd dans le coma mën a réparer ay situation ay relations Euh, mu doon mu doon comme on dit là une grâce une belle grâce pour mm-hmm. avant dernière question laataa ñuy jeexal rek peut tey jii euh, fi nga xamante ne moom mooy Sénégal woykat yu bëri na lool ku nekk ak euh, manière bi ngay woy ku nekk mm-hmm. ak say termes tey jii kan nga def ak moom duo actuellement ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci musique bi. ici au Sénégal mm-hmm. ba am na am na am na ñu bëri ah y a beaucoup. et y en a beaucoup de propositions qu'on a eues. Euh, mu nekk euh, pour les jeunes artistes ñu ñu commencé mu nekk aussi comme amoon na OMG on a un projet elle et moi. Mm-hmm. on a un projet qu'on doit ñu bu ñu nar a ficeler. Euh, peut-être il y a Didier Aoudier aussi peut-être il y a aussi il y a des artistes am na benn tam artiste qui est de la Guadeloupe Franzi wax naa def ak moom ay projet am na ñeneen tamit des zoukeurs aussi en Antilles. am na aussi euh, peut-être Yemi Alade peut-être pourquoi pas voir d'autres horizons mhm. yi nga xam ne ne ce n'est pas du cabot mhm. pour que Paulette puisse poser sa voix faire des échanges des échanges musicaux et voilà bien sûr bien sûr pourquoi pas mhm. bien sûr ce sera euh, bon je peux pas me mënuguma si wax mais euh, vous verrez incha allah bientôt. par la grâce de Dieu. incha allah dinañ ko xaar lépp loo xamante ne rek dafay produit nga fas yéene ko euh, ñi nga xamante ne ñoo ñooy say ay fan incha allah dinañ ko xaar. Euh, li ñu cërale woon ci waxtu jeex na sa mot de la fin lan lay doon. ben merci à leral.net merci, merci à tous mes fans merci à mon Merci à tout le groupe Blues Band, à toutes ces personnes qui sont derrière moi, c'est ma famille, c'est toutes les personnes qui sont passées sur mon chemin. Je vous dis merci, mhm. que la santé revienne, que cette pandémie nous lâche et que nous, musiciens, nous puissions retrouver nos activités par la grâce de Dieu. Merci à tous. Merci euh, euh, li nga ñu dalal ci sa biir kër euh, vraiment nga nekk accessible ko xamante ne bañ la woowee aussi subitement ci nga accepté li nga xamante ne moom mooy suñu invitation ñu koy rafetlu bu baax a baax di la ñaanal yàlla avancement ci li nga xamante ne moom mooy sa carrière amin rek la ñuy wax ñun ñëpp di rafetlu bu baax a baax dalal bi nga ñu dalaloon fii ci biir kër di HLM Grand Yoff suñu deuxième numéro femme de la semaine di sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom équipe bi ñu àndaloon euh, fan si ñu doon aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, téléspectateurs yi loolu lañ leen àndiloon tey ci li nga xamante ne moom mooy femme la semaine euh, Paulette waxtaane na lépp loo xamante ne dafa projet waxtaane aussi li nga xamante ne moom mooy carrière am vie privée lépp daal dina koy dévoiler ci li nga xamante ne moom mooy femme de la semaine ñu leen di jaajafal bu baax a baax di leen jox rendez-vous très bientôt ci beneen numéro femme de la semaine jërë ngeen jëf